ndongo wara def sen examen dogo a sen jang mi ci altini bi ñaar fukki fan ak juróom lolé waral ñu amal tànk doxantu ci l'école élémentaire Mouhamadou Mansour Sy ak El Hadji Alioune Pala Mbaye école privée bi di Maam Abdou Aziz Dabakh ngir say tuk nek ndaw ñi ci l'école yoyé école de dafa bi le 25 certainement amna école yi nga xamante le 25 bobu démarré ñu won mais ñun on était dans les dispositions pour que ñun ñu mëna démarrer parce que matériel mi ngi won sur place élèves yi ñëw nañu donc il y avait pas de amuloon amuloon amuloon raison que ñu bañ ñu démarrer on avait démarré timidement mais néanmoins n'empêche que ñun avons commencé woon mais tey la ñu gën a commencement bi daal tey la gën a tey la gën a parce que tey la xale yi classe jàng parce que jeudi vendredi samedi c'était pour les permettre ñu jël euh, matuwaay yi ñu wax avons ñun suñu école lan lañ fiy doxal de particulier par rapport au protocole bi avec le protocole bi nan lay classes. ak seen classe yu yi euh, classes de terminale et 2 classes de troisième mais nous avons toll 22 classes au total muy 16 classes de terminale et 6 classes de troisième loolu dafay indi ay réarrangement xam boo xam si emploi temps bi ci personnel enseignant bi nous déployé woo dafay am changement mais tamit ñi xale yuy duggee si salle yi occupation espace bi ak tamit nan la ñuy ba ñoom bu nekkee si école bi danañ mën respecter les mesures barrières loolu mënu gën a am importance. élèves itam ñëw nañu bu ñu ñëwee jaar si porte bi si monsieur Lo mu defal leen test thermoflash ñu jaar raxas seen loxo ñëw si surveillant Assane Ndiaye mu jox leen seen seeni masque han ah, fofu tamit dañuy laalaat alcogel digënté élève ak moromam warna mat lu mu bon bon bon benn mètre. loolu aussi def nañu tout ba jéem koo respecté ndaxte classe bu ci nekk euh, maximum ñaar fukki table banc ñoo ca nekk benn table banc bi pour nettoyage bi raxasu beeg yooyu la yeneen table banc yi pour élèves yi la xool seen disposition séparé ko ba nga xam boo duggee ci classe sax d'ailleurs di ngeen gis toogi naay bi matuwaay ñu jël doon lu am solo naam waaye jur ay jafe-jafe ci ñi nga xamante ne ñoo seek njàng meeg njàngale mi rawati nag ci ndaw ñi suñu tekki max yi daal dañuy sonn waaye man su ma nekkee ci classe bi moom du ma mën a nooy waaye dama koy dindi ba kii ba pare doo ko taxaat man la max su ma ko taxee du ma mën a nooy loolu moo tax te dama amee silosi ndax loolu signalé nga ko seen direction école déedéet waaye dinaa leen ko wax waaw moom baax na de ndax ñu ngi see jàng waaw ñu ngi sax balaa ñuy dëgg dañuy raxasu waaw ñu laal alkosem mi ngi di sax waaw ñu laal ko après ñu dëgg commencé jàng suñ ja ñu commencé jàng après par un ñoo toog quoi waaw ñoo toog après ñu jàng normal mais max yi dañuy xaw a sonal tuuti rek dañuy xaw a sonal waaw dañuy xaw a sonal nii mais mais ñu ngi koy taq moom. instant bi ñu wax nañ école bi dañuy may trois masques instant bi ñu instant bi defoon nañu un école yi sax def nañ trois masques. ñun rek ñoo am benn masque il faut euh, ñun dañoo bëgg ñu am trois masques masque moom pour ñu euh, am ko loolu lañ bëgg su dee ba yàgg moom affaire dalay fàtt tuuti moom waaw jàngalekat yi di xamle ñoom itam saa suñu ñëwee dinañu sensibiliser ndongo yi ak tamit di bàyyi xel ñi nga xamante ne dañuy am feebaru nooy côté enseignant nu ñuy def lu ñu am daal mooy sensibilisation ñu ngi sensibiliser xale yi waaw ñu ngi veiller aussi parce que bañ nañ ko chaque classe am na ñaari enseignant kii def cours ak ki war a jàppale xale yi si hygiène mesure d'hygiène surveiller ku jénn booy dugg noo war a def raxas laajte nañu xale yu am problème balaa ñuy commencé mais kenn signalé wul si côté boobu dara mais liñ euh, li ñu mën a wax daal moom masque bi moom métti na si ñëpp rek métti na des fois da ngay gis ku jékki rek xëcc il faut nga kiiwaat ne ko dellool masque bi waaw côté maître comme côté élève madame mo mënul wax ci bir masque bi mom franchement 8 9h bu 2h mom madame mënu ko wa mënuma mako franchement mais xalé yi comme ay xalé lañ dañ leen di jéma nap rek euh, mais xam nga c'est des fois c'est gauche quoi takko nga na xalé bi takal lool rek aussi day tax nga takko par force temps de cours normalement légui yeen en tant que professeur nan ngeen ban relation ngeen am élève ci bir classe ak mesure distanciation sociale waaw c'est vrai que tay lañu reprendre waaw tey mooy premier cours yi nga xam ne nii am na fii nii ci école bi mais par rapport ak mesures yi nga xam ni jël nañ ko mën nañ jàpp ni fii moom ah euh, ñu ngi koy matale parce que déjà boo duggee ci entrée école bi di nga constater que ni def nañ fi benn genre barrière boo xam ne nii dafay éviter élèves yi di fi duggandoo en masse wala ñuy génnandoo en masse donc euh, ce qui veut dire que ni au niveau du portail c'est déjà réglementé. dugg fi moom léegi dafay jaar yoon également par rapport au dispositif sanitaire gis ni am lavage des mains boo xam ne nii mi ngi fi am na gel am na kotol élèves yi également ak enseignants yeeg ñëpp bala ñuy accéder en classe dinañ raxas seeni loxo bon également y a un surveillant bu nekk fi boo xam ne yor na thermoflash boo ñëwee mu xool sa température bon vérifier également ndaxam le port du masque est effectif bon sur duggee ci classes également fille, de l'église gouvernement a dane les classes là ay effectif 20 élèves mais fille, sax élève élèves effectifs moins de 20 élèves alors que salle de classe et salle de classe sont aérien mais malgré tout euh, respecté nañ ci euh, distanciation physique bi élèves qui tout ci masque bon également prof yi ngi un masque bon ñi ngi démarrer cours mais yeen en tant que professeur bu ngeen duggé ci classe ba dispenser cours élève ndax masque bi ngeen ko taxé voix bi ngeen waralé pour élève dégg ko lool di ngeen ci baye xel tamit. waaw waaw waaw dinañ ci baye xel bu baax xam nga comme ñun ay professionnel lañ bon c'est vrai que tak masque mom di jàngale yombul également ay élève di tak masque di jàng yombul déjà limi ñi ci créer sax moy climat de méfiance motax biñu duggé tay classe suñu première réaction biñu jëk def comme genre prise de contact waxtaan na tak élève yi par rapport ak lolu waxtaan ak ñom ci fièvre bi waxtaan ak ñom ci mesure yi nga xamni ni mom lañu fi tek ñu war ko respecter bon également buñu togué comme effort yi ñu doon def nga xamni dañuy yor euh, yor ben fois bo xam dafa wara porter dem ba ci ginaaw classe bi ba élève yëpp di dégg effort yoy dañ koy gëna yok parce que comme dañuy tak masque xamna ni an euh, élève yi seen dégg-dégg mëna na démé non mais dinañ def en sorte que buñu waxé ñi nekk ci ginnaaw dinañ def tout ba dégg ñu bon d' autant plus que également comme ay effectifs yoo xam ne dañ ko réduire je crois bien que problème boobu noonu du du posé wu comme ay professionnels lañ loolu moom dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax waaw parmi eux am na ci ñoo xam ni dañuy traîner yenn maladies yi donc ñooñu tey jii dañu am obligation takk masque mais également bu ñu nekkee classe euh, de temps en temps bu ñu bay sentir ne masque bi xëñ na mi ngi leen di commencé di étouffer wala mu ngi leen indi ay problème mën nañu génn sax tout doucement ci cour bi touti wàcce ko xawa jël touti air après dugal ci classe bi tok nga xamni duñ ci am ben jafe-jafe waaw lool mom defe na bay nañ ci xel bu baax aussi waxtaan nañ ci ak ñom kilifa école yoyé di xamle matuwaay ñu jël nekkul lu mëna ar aar yi ba mu jeex waral ñu ñaax parents yi ak askan wi ngeen ñu jël seen matuwaay. parce que xalé mom xalé la disposition yi mak mëna jël xalé mënu ko jël des fois dañu échapper ñu dajalo wala ñu seddo dara wala ñu ki dara mais yoy yep ya un comité de veille là muy xol pour que yoy yep baña am donte que nag mun ñoo assuré kenn nit waaw parce que xalé mom xalé la des fois da gis ko xam sa day dugg ci classe bi dindi masque wala mu wacc ko yoy yep dañ ci tenir attention ni ko gratal sa masque defal ni defal ni donc à chaque fois on les interpelle par rapport à ça pour que ñu respecter li nga xamé dal moy barrière yi dañ def nak suñu carton da ci dess nak di waxtaan ak ñoom di leen sensibiliser ñuy comprendre lan moo waral situation bi parce que xale doo ko ñëw dugal ko situation rek comprendre du deful dara du dem il faut nga ko expliquer lan moo tax ñu toogee nii lan moo tax ñu séddale leen nii lan moo tax ñu leen di wax lii ak lii ak lii ak lii kooku depuis le début ñu ngi koy def pour que ñoom ñu jël ko en charge parce que tant que ñoom jëluñu ko en charge rek du sotti ñun ñoo nekk gendarme mu taxaw di leen kii noonu far il faut que ñoom ñu incarné ko jël ko en charge xam ne lii kat ñun daf noo war pour protéger nu mais pour protéger ñëpp kon ñun nañ ko jël en compte ñu doxalee noona bu ko defee day daal di day daal di yomb. jàppale ñu ci ndax ñun xëy na bu ñu nekkee ci biir école bi ñun mën nañoo jël suñuy disposition li war suñu diggante ak mu ñoom ci aarleen leen daañu ko def mais bu ñu génnee foofu mooy suñu problème. parce que mënuñu top ci élève bu nekk ba kërëm mënuñu dem jëli ko kërëm indi ko école ko digënté bi lu nekk man na fay xaj kon parents yi xëy na sañoon ñom ñoy japp seen loxo doom indi ba école su wàcc joté ñew jël ci seen doom yobbu kër bi bu ko defee du jadd fenn lepp ni ñu wax ni mo da koy nit ñi dañ koy tax feebar bi bugg ñu moytu ko li ñu wax ni mom ne nit ñi wara def bu ñu toogee nañ bàyyante distance bu ñu toog bu ñu ñëwee nañ rax suñu loxo laal gel bu ñu génnee ak bu ñu duggee ñu moytu yor suñuy masque bu ñuy dox aussi même boo yoree masque aussi nga nga nga respecter distance sa distance ak nit parce que day màtte du màtte nga bañ a dugal sa loxo moo gën eh, faggu moo gën faju ñu ñu ñu ñu ñu aar suñu bopp balaa feebar bi di agsi ci ñun foog naa na ab fa ab fàggu moo gën moo moo gën a yomb fuuf faju donc loolu ñu ñaan nit ñi ñaan xale yi ñaan parents yi ñaan ñëpp daal kenn ku ne mu bàyyi loolu ci xelam. kilifa école yooyu di xamle matuwaay ñu jël nekkul lu mën a aar ndongo yi ba mu jeex waral ñuy ñaax parents yi ak askan wi ngeen ñu jël seen matuwaay.